salaamaaleykum et merci waaw action yi ñuy mënee ci terrain bi mooy euh, li ñu njëkk def mooy dañu njëkk a def benn wëy de sensibilisation wëy bi nga xam ne pour artu yi la ci euh, euh, maanaam nu ñu war a jëfandikoo di raxas seen loxo xam nga bañ di dajaloo respecter distance sociale ak moytu tamit surtout intox yi ci net ci internet bi donc boobu la ñu njëkk a def mais après loolu def nañu ay caravane de sensibilisation wër marché yi wër yenn artère ndakaaru ak banlieue bi pour euh, tamit artu jaaykat yi ne leen nañu moytu parce que xaalis bi ñuy manipuler bi ñu leen di jox ak ñoom bi ñuy wecci xa euh, virus bi mën na ci des ñeent ba juróomi fan donc euh, ñuy artu jaaykat yi ak tamit ñi ñëw jënd donc def nañu ay caravane waaw wër un peu partout ci ndakaaru ak wër un peu partout ci banlieue bi waaw léegi bu loolu bu weesoo loolu tamit def nañu ay capsule de sensibilisation capsule yoo xam ne Euh, une minute deux minutes lay durer waaw pour wax nit yi tamit nañu moytu geste barrière yi nañuy bañ di génn su fekkee ne amuñu yitte ci mbedd mi ci biti su fekkee ne demuñu di liggéey wala amuñu soxla bu jàmp bu ñuy dox na nañu toog seen kër nañu éviter dajaloo yi et cetera ci euh, boulangerie tamit euh, def nañu quelques boulangeries sensibiliser nit yi nañu respecter tamit distance sociale bi wax nañu tamit suñu esprit yi nekk ci ndakaaru banlieue bi ak ci région yi ñoom tamit nañu dem ci lieu public yi di wax nit yi nañu respecter distance sociale bi bu rang amee ñuy bañ di dànqaloo mais nañuy garder un mètre de distance bi nga xam ne moo recommandé jamono ji nag ñu ngi ci tournage boo xam ne pour masque yi la waaw pour artu vraiment sénégalais yi ñuy takk masque waaw euh, bañ di génn te takkuñu masque donc instant yi nii loolu lañ nekk di di tourner nii ak violence bi nga xam ne ñu ngi koy remarquer entre jeunes yi ak policiers yi waaw donc ñaari capsule yooyu noonu lañu nekk di tourner Euh, jamono ji donc di continuer sensibilisation auprès des Sénégalais. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñiy déglu rajo bi également depuis bi feebar bi commencé ak léegi euh, vraiment considéré tuñ ne ñun mouvement de jeunesse politique leen parce que dañ jàpp ne tey jii le parti politique c'est le Sénégal donc jeunesse bi yëpp amul mouvement amul politique amul société civile ñun ñëpp dañoo booloo nekk benn pour que véritablement ñu xeex li nga xamante ne mooy Covid 19 mooy suñu ennemi këma dès lors que suñu leader yi dem nañ ba juboo ci xeex mi nga xamante ne ñun ñëpp war nañ ci dugal suñu loxo pour que ennemi commun bi génn suñu dëkk ñun itam vraiment amuñu droit aujourd'hui suñu diggante ñu nekk fi di xiiroo di ŋaayoo moo tax tey jii ñun considéré wuñ ne ñun nous sommes de l'APR les autres son du PDS wala les autres son de euh, voilà quoi de notre parti politique mais nous considérons que la jeunesse sénégalaise ñun benn dànk lañ def benn say lañ def pour que véritablement ñu xeex li nga xamante ne mooy Covid 19. beneen mbir mi aussi li may lancer mooy à la jeunesse sénégalaise cest dire bu ñu respecter les gestes barrières yi nga xamante ne autorités sanitaires yi ak autorités étatiques yi digle nañ ko yaakaar naa ne léegi feebar bi génn ci dëkk bi ne amaguñu coronavirus defe naa ne nañ fexe comme ça ñu bañ a jot parce que cas communautaire actuellement mooy mooy tiital ñëpp. beneen mbir mi aussi li may proposer à que ñu def confinement général des enfants xale yi il ne faut ñuy nangu xale yi di génn kër gi mag ñi au moins bu ñu génnee kër gi même bu dee course yu ndaw mën nañ fagaru mën xam nañ lu baax ak lu bon xammee nañ ko en tout cas mais xale yi xàmmewuñ lu baax xàmmewuñ lu bon xamuñu fu ñu téye seeni loxo xamuñu fu ñuy bàyyi waa xam leen ne aussi ñun ay ndaw lañ donc li ñu tax a jóg mooy ñu fexe maladi bi nga xam ne mooy suñu ennemi gëma mu génn dëkk bi pour suñu activité continuer suñu économie continuer pour que véritablement demain ñu continuer parmi les pays bien quoi qui s'en sortent les premiers waaw yàgg xamee euh, askanu Sénégal da ko ñor te euh, bi feebar bi tàmbalee door nañ def ay activité de sensibilisation doon nañ dem ci marché yi ak espace yi nga xam ni mbooloo yi dañ fa leen daje donc loolu début bi la woon saafonteeg nit ñi xamal leen li nga xam ne moo aju ci jàngoro bi biñ ci jugee bi nga xam ne nag situation bi mu ngi gën a garaaw ñu docteurs yi ay dajaloo yeeg yooyu ci lañ ne ah nañ changer formule ñu ñëw organiser wu comme parti niñ ko yàgg a jël li nga xam ni moom la ñu am ki ndëmbal taxawu ci gox yi nga xam ni fa suñu section yi nekk wala coordination départementale yi ñu andi suñu ndimbal taxawu askan wa fa dëkk donc loolu mooy li nga xam ni euh, jotoon nañ ko mënee ba di ko continuer nii ci activité yi nga xam ni mu ngi jëm ci prévention ak xeex jàngoro bi nga xam ni moo di moo di mbas bi bu weesoo loolu itam ñu ngi toll ci jamono joo xamante ni dégg nañ fan yi euh, centre national de transfusion sanguine di wax di alerte di wax ni banque de sang yi fi mu toll nii dafa vide te comme ñu ngi jëm ci weeru koor ñëpp xam nañ ni weeru koor lu jëm ci wàllu don de sang du demee noonu moo tax ñaari fan yi ñu ngi dawal suñu ay affiche di invité tous les militants et sympathisants de Pastef pour ñu dem mais ji deret donc activité yooyu dinañ ko def ñaari fan yi mu di suba ak gannaaw suba invité ñi nga xam ni ñoo di ay militants ak sympathisants wu Pastef ñu dem ci banque de sang yi mais fa deret pour que ñi nga xam ni dañuy nekk ci soxla boobu bés buñ ci tollee synthèse wala ay bànkaasam mën leen jox li nga xam ni moom la ñu yittewoo ci wàllu ci wàllu banque ci ci wàllu deret loolu mooy activité yi nga xam ni ñu ngi koy def ci euh, situation bi nga xam ni moom lañ nekk du situation bu facile ndax laajul ay dajaloo laajul ay déplacement yu bëri waaye compte tenu nag ci restriction yooyu ñu ngi seet ci fu ñu mën a jaar rek askan wi lu mu yittewoo te mu tolloog suñu kàttan ñu taxawu leen ci di wax nit ñi que ni xeex bi ku ci nekk sa xeexu bopp la merci